fi ñawteef waaye tamit xooxatal yi ñuy def ci àdduna wërngal këpp jigéen ñi loolu moo nekkoon seen bébét muy kureel gu ëmb jigéen ñi nekk ci àdduna bi yépp te yëngatu ci wàllum liggéeyu dem ba dikk bi ci fànn bu nekk nag ñu doon wax ñu daal di leen jàppale ci convention wu 190 bu organisation internationale du travail. mais également am na yeneen avancées yu ñu def yu bari ci Sénégal pour rek autonomiser jigéen ñi pour ñu gën a dugg ci domaine bu neex pour liggéey ci avec une euh, ak condition yu baax maintenant tey nag transport la ñu wax jël nañ temps xool li nga xamante ne mooy seen bébét li ci ëpp mu nekk ci ratification wu la convention 190 mu nekk convention boo xam ne affaire de violence lay wax ci cadre liggéey bi maanaam naka la ñuy encadrer encore les femmes bañ mën a liggéey ci jàmm ba nga xamante ni kenn du leen sonal ci seen liggéey. boddi bi ñu nemmeeku ci wàllum liggéey waaye tamit ngir gën a dëggalal doole jigéen ci liggéey yi nga xamante ni ñu ngi koy def loolu ñoom moom la soxla ci seen droit yu ñu am. président de la république joxe na ay instructions fermes pour ñu ratifier ko très rapidement. d'ailleurs ñëw na ci table conseil bi delsi na ci table conseil bi ndax dafa am rek ay quelques corrections yu des mais nekk na loo xamante ni Sénégal bi. ñi dina ko ratifier très rapidement loolu moom mu nekkoon porteur message boobu mais surtout également message du président de la République pour joxe engagement am disponibilité am encore accompagner les femmes ci conférence internationale bu ñu amoon ci diwaanu Saly bu dajale woon nag lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukki réew yoo xamante ni ay jigéen yu bàyyeekoo fu nekk la ngir nag doon waxtaanee lépp lu ñuy ñaawteefal jigéen ci seen wàllum liggéey rawatina ci wàllum dem beeg dikk bi ngir ñu mëna jox leen gëdd yi nga xam ni moom la ñu soxla.